Thiénaba TV à votre disposition pour la couverture de vos événements, pour la couverture médiatique de grands événements. Thiénaba TV avec vous avant, pendant et après. mbokk ngir daray Thiénaba TV du la rëcc bësal abonné bësal cloche bi ngir lépp nga man koy am. bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين mbokk yi jàkkaarloo ñun asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñi ngi sant sunu borom subhaanahu wa ta'ala. di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi di nuyu ñépp ñi nga xamante ni bii ñoo ngi jàkkaarloo ak ñun di jiital ci nuyoo boobu ki yàlla jiital ci dëkk bi mooy sunu baay a Cheikh Al Hassan Seck yàlla na ko yàlla sàmm te yàggal ko fi te wéral ko di ci teg imaamu ratib Cheikh Ahmadou Seck di ci teg chef de village Serigne Alxasan Ñaana Seck di ci teg euh, autorité administrative yi nga xamante ni bii ñoo jiite arrondissement Thiénaba sous-préfet monsieur Ndiak saar di ci teg monsieur le maire de la commune de ba Alxaaji Taala Jaañ ñu buwaale géew ñépp ñoo xamante ni bii ñi ngi ci ba wala ñu nekk lu wër ba wala ñu safoo ba waaye nag mënuñoo fàtte ci nuyoo boobu ñi nga xamante ni bii ñooy sunu sëriñ su baax si nga xamante ni bii lu ñu xam ci diine ginnaaw ba yàlla wéyee ci seen seeni loxo la jaar di sant bu baax a baax a baax ak a nuyu parents d'élèves yi invité yi ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu waaye di teg nuyoo bi ci ñooñu mu jàll leen ñu ko ci ñi nga xamante ni bii mënuñoo tudd seeni tur ñoom ñëpp euh, kàddug daara ji kàddu la goo xamante ni bii du leen lu may sant ak ngërëm waaye ak leeral li tax daara ji jóg ak wane lenn loo xam ni xëy na diggante daaw ak ren am na fi kon daara ji daara la joo xamante ni bi dafa sosu wala nga ni bu la neexee nga ni dafa sofu ci daara joo xamante ni bii maam Njaga Jóob moo ko sosoon fii ci attu njóobeen bàyyi maam yi di ko di ca wuutoonte ba sët yi ëgsi ci ñu ciy jéem sunu kemtalaay kartan di ñaan yàlla sunu borom subhaanahu wa taala yàlla nangul leen te nangul ñu lépp luñ ci jàng ci xam-xam lépp luñ ci xam te jëfe ko yàlla nangul ñu ko loola yàlla na ko yàlla def ci seen balance yiw ñoom ñi nga xam ne ñooy sababu ñu xam dara ba koy jéem a xamle euh, ñooñu kon di amal nañ leen cant gu rëy ndax kat seen borom am na lum leen sas muy sas wu rëy te mu feeñ bu baax a baax a baax ci prestation yi nga xamante ne bii gis nañ xale yi def ko moo xam discours la bu ñu jàng moo xam ay taalif la yu ñu taalif walla woy yu ñu way yooyu yépp dañuy gis ni da caa feeñ bu baax a baax lii nga xam ni moom la jaa daara ji jël te muy tem temu daara ji ak tarbiya al islamiya wa atharuha fi l fardi wal mujtama maanaam yarub lislaam ak jeexit yi nga xamante ni bii moom mën la def ci nit ki waaye mën koo def ci pénc mi xam ngeen nii ñii nekk fii Sénégal ñu leen di tuddee ay këru diine la leen sosoon la leen a taxoon a sosu lépp du lenn lu may jàng jàngale yar kon loolu moo leen taxoon a jóg ñañ ñaan suñu borom subhaanahu wa lañ ca def lépp yàlla yàlla nangul leen ko kon loolu dafa am importance bu baax a baax feeñ na bu baax a baax ci ni nit kii walla àdduna si mënta jàkk te nit ñi amuñu lii amuñu pas bu wér ci seen borom waaye amuñu ay jaamu yàlla yoo xamante ni bii ñu set wicc la te wér waaye amuñu ay jikko yu baax yoo xamante ni bii mooy tax ñu mën a jëflante ñetti yooyu fii ak nit ñi dellu ci rek àdduna si du mën a jëm kon faw ñu dellu si ji te loolu la alquran di woote sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu lay woote daara ji tamit ci loolu lay dox ñii ñaan sunu borom subhaanahu wa taala yàlla jàppale ñu ci kon ñi nga xam ne ñoo ci jàpp ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm ba mu yëg si fii lim bi xam naa ni da ngeen ma koy jéggal rek ndax ñi ci jàpp ñëpp bari na waaye waa Njóobeen ñoom kenn jiituwu leen ci buñ nee waa njóobeen nag waa Cenaba tax ndox ñoo leen dalal yal na yàlla fay leen ñoom ñëpp kon daara ji loolu mooy jubluwaaye mooy fexe yar nit ñi jàngal diine nit ñi yar leen ci bañ mën koo jëfandikoo waaye am jikko yu baax yu baax yoo xam ne dina tax ñu mën a jëflante ak ñi nga xamante ne bii ñoom lañ nekkal yàlla dimbali nañu ren euh, am na lu ñu jot a réaliser donte ko amul solo muy fukk ñoo xamante bii yàlla dimbali na leen ñu wàcce alquran ak fukk ak benn yoo xamante ni bii yàlla dimbali na leen ñu mokkal alquran yàlla na yàlla saxal ko ci seen seeni dënn waaye daara ji yemul foofu rek ndax am na yeneen yi activité yu muy def ndax boo am na ay li ñuy wax ay concours yoo xam ne local la daara ji mi ngi ci yóbbu ay candidat di ci ca jongante ya yàlla leen ci dimbali bañ ci am ay ndam li ñu wax jaa'izatu Zahra mi ngi amee woon ca Thiès yàlla dogal na ka jëloon première ci daara ji la jógee jaa'izatu Mame Yacine Seck mi ngi amee woon fii ci Thiénaba yàlla dogal na tamit ka jël première mi ngi jógee ci daara ji jaa'izatu Sénéco yàlla dogal na demoon nañ ci phase régional yi mais yàlla dogul nag ñu dem phase national kon noonu la ko yàlla bëggee am na beneen jaayisa boo xamante ne bii taxawal nañ ko muy lu ñuy wax euh, les mélodies du Coran Euh, niki noonu daara ji tamit amoon na ci représentant waaye yàlla dogal na quart de quart de ci la ñu jot a ci la ñu jot a yem. Euh, am na beneen jaayisa boo xamante ni ñu ngi ko tuddee Cheikh Ahmad Bamba international boobu tamit ñu ngi ci ci participation yi xam naa première sélection lañ defagun ba jël nañ ci benn ndongo xam naa ne la ci topp incha allah fu mu toll rek euh, ñi ko war a yëg dinañ ko yëg ñaan yàlla ñooñu yàlla defal leen ca tawfiq noonu la daara jiit amee la benn école bu ñu tuddee madrasatul xufaaz a taabia li mahadi xaaja binta Thiaw euh, amoon nañ ay examen yoo xamante ni bii defoon nañ ko lu mel ni shahada ibtidaaya al arabiya sarfika arab am na ñeent ñoo xamante ni bii yàlla dogoon na kenn koo xamante ni bi daaw yàlla dogoon na mu jàll ci ren jii am nañ ay candidat yoo xamante ni toll na ci fukk ak ñett yoo xam ni euh, def nañ ba pare ñu ngi xaar résultat yi yal yàlla def leen ñu at mi ñoom ñëpp Euh, daaw ni ki noonu amoon na ñeenti candidat yoo xamante ni BFM la BFM arab ñoom ñëpp yàlla dogaloon na jàll nañ ren jii tam am na ñett ñeenti candidat yoo xam ni BFM franco arabe lañu ñu war a def ñi ngi ñaan suñu borom subhanahu wa yàlla dooli leen tawfiq ba ñu bokk te ñi nga xamante ni bii ñoom ñooy jàll kon loolu nañu xam ni euh, daara ji ci mi ngi liggéey ci wàll goog loolu lépp mi ngi jëm jëm ci jàng ak jàngale yar waaye xam ngeen ni daara di gën a am ay yitte di gën a xat fii mu nii nii ma leen di fii ma taxaw di wax ak yéen mën naa ne ci ak jaaxle laa nekk maa ngi ne ci daara ji ndax liste d'attente bi nga xamante ne bii moo may xaar ba école tijjee xawma fu ma koy dugal te ku ci nekk da jàpp ni sa doom moom wëree su ko wërta waa pc passé déwén te jëluñu ko loolu nag képp kuy jàkkaarloo man wala ngay dégg sama kàddu na nga xam ne man ak yow ñoo bokk loolu pour nu ñuy def am solution boo xamante ni bii dinañ mën a am fu ñu dugal da da donga yooyu pour ñu mën a bokk ci ñi nga xamante ni bii dañuy jàng alquran mokkal ko jàng seen diine xam ko te jëfe ko yàlla nañ ko yàlla defal xam naa ni kàddu gi mi ngi bëgg a gudd damay dellu di sant bu baax a baax euh, ñii nga xamante ne bi ñoom laa jàkkaar lool muy sama jàngalekat yi ñii di jàngale alquran ñii nga xam ne ñoo nekk ci madrasatul xufaas ci niveau primaire ak ci niveau moyen ñoom ñëpp ñi ngi leen di sant ci effort yi ñuy def ak sacrifice yi ngir jàppale waa daara ji yéen a gisandoo discours yi nga xamante discours bi nga xamante ni bii moom lañ traduire ci français traduire ko ci anglais wax ko ci arab loolu ñen ñoo leen ko doon jàngal mooy suñu sëriñ su baax si yal yàlla fayal ñu leen kon mënuma jeexal sama kàddu duma leen sant bu baax a baax waaye nag cant googu day dale ca ga nga xamante ni bii ba muy gën a metti ba nga xam ne dara nekk gu fi woon moo toogoon muy soxna Aïcha xafidahu llahu wa raah mooy ki nga xamante ni bii euh, mën naa ni jigéen la ju man góor wala ju man góor yu bari waaw loolu moom mën naa ko wax sama baat ca kaw te ñu bari nañ ma ko nangul ndax da koo jëf ñépp gis kon yàlla yàlla sàmm ko yal yàlla aar ko moom ak ñi nga xamante ne bi ñoo nekk ci suufam téel ko ko ba loolu man ko bu ko manee nag am na ñu nekk ci wetam uuf ko ba loolu man ko waxoon naa leen ni fii la daara ji tàmbalee woon mu tuxu dem kër soxna màgget Diop mu def ci effort yoo xamante ni bi kenn mu laa wax na mu toll te ba léegi mi ngi dox sama sëriñ Mouhamadul Amin ndoom xafidahullah wa raa yàlla yàlla sàmm ko yàlla dogal na yàlla dogal na bu ma jàngee alquran ba xam ci dara dinaa ko gërëmee yàlla suñ borom subhanahu wa taala ndax moom moom moom la neex waaye sama wejur ba ibrahim Diop rahmatullahi alayhi laataa may dugg jàng arab fer naa jibuleer nañ jàng ba suratul insaan yàlla dogal oustaz du may ñëw fii yor ñu ak man ak ñeneen ba mu demee ba tële oustaz Ibrahima Sarr rahmatullahi alayhi effort yam ci def oustaz jaar na ci kon bëgguma guddalaat waaye li may dugg foofu rek mooy soxna Maguette Diop suñu bë su bëggee uuf daara ji soxna Ndeye Khady bëggee uuf daara ji oustaz baa ngi mel na neen noo xamante ne bii bokkul ak jubluwaay yi mën naa am de waaye kon mën naa mën naa jafe waaye ñoo bokk fuñ diir jëm dégg ngeen kàddoom sànq la ko waral nag mooy am melokaan wu rafet ba ñu wóolu ko ba dénk ko sunu mag soxna Ndey Xadi Jóob kon kàddu gaa ngi bëgg a gudd lii lépp boo ngeen déggee ma koy wax wane sama reconnaissance sama nangu bu baax njëkk gi nga xamante ni bii defal nañ ko waa daara ji waaye mën naa ni defal nañ ko al islaam islamiya ndax daara ku koy liggéeyal liggéeyaloo sa bopp kese waaye islam bépp ngay liggéeyal te kon loolu def nañ ko moom seet bu baax waaye loolu tam bu mënee nekk xam ngeen ni waa canaba ñoo ñoo yaatal ñoo nangu tey sëñ sëriñ canaba bu ni woon kenn du tànt fii cooway bari waaye kenn du fi tànt bu bu ñëwoon ni tekki lan tànt bet day metti rek waaye dañ koy tekki waaye nag ñoom fii ñu nekk dañ leen fee wuutu ba tax na saa bu ñu demee ci ñoom di leen wax ne bëgg nañoo amal ab jataay dañuy kontaan dañu ñaanal yemu ci sax dañu fàttali ay histoire yoo xamante ni bii doxoon na diggante mag ña mu nekk lu rafet kon ñoom it yàlla na yàlla fay leen ci njekk loolu na ngeen xam ni daal képp koo xamante ni bii ñëw nga wala nga yónnee mbaa nga bëggoon a ñëw te ñëwoo ñi ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan yàlla suñ borom subhanahu wa taala yàlla mi nga xamante ni bii ku mu